loolu moom mooy euh, et après loolu moo ci am solo parce que je pense que déjà bu ñu apprécier déjà l'action ki a été menée dañ koy apprécier ci deux angles déjà sur la forme ak sur le fond sur la forme moom mooy ñoom dañu jóg ci plan d'action dem ci action bi nga xam si ni moo waroon nekk dernière action action bi gën a extrême pour man mënoon nañoo am yeneen actes ñu posé balaa ñu yegg ci journée sans presse léegi ñoom après journée sans presse ban action lañ mën a tegaat question la beneen affaire mooy est-ce que amoon na journée sans presse comme ni ko siñ bi sëñ Birahim waxee am na ay quotidien am na ay médias yoo xam ne si nit ñu ngi doon wax journée sans presse écrite lañ waxoon te ñu si bari aussi il faut le rappeler li tax participer wu ñu ñoom defuñu seen édition c'est parce que maison bi nga xam si ne moom moo doon def affaire bi euh, le président du CEDEPS moom moo ko moom dafa refuser di Africom moom dafa jël maison aussi mu bañ a def édition ce que je ah. trouve anormal aussi mm-hmm. yow boo amee liberté def bañ a def sa édition keneen ki bu amee liberté aussi def ko war a koo xañ cest à que ñoom en fait euh, ñi ngi réclamer démocratie mais ils ne sont pas démocratiques aussi dans la façon bi nga xam si ni moom la ñuy xeexee seen action ci forme bi maintenant dans le fond mooy la question lan la ñuy xeex lan la ñuy laaj moom mooy problème mu fiscalité bi mais sama sëriñ loolu lu garaaw la la même façon les entreprises qui sont dans les BTP comme ni ko sëriñ Birahim waxee ñoom tamit bu ñu amee difficulté wu impôt ñoom it dañuy def dañuy def de la grève ñeneen ci nekk secteur yi nga xam si ñoo nekk dans l' économie active yëpp ñoom ñëpp tamit bu amee jafe-jafe impôt aussi est que dañuy def li li li presse bi def pour bañ fay seen impôt il faut ñu xam ni boo choisir def entreprise nga nekk dans le domaine économique une entité économique sa but nekk à but lucratif dafa am ay obligation yu ceg sa ndoon y compris obligation wu nga respecter say obligations déclaratives et de paiement des impôts te déglu naa président CEDEPS ci boppam mu ne ñoom dettes yi ñu leen di laaj c'est des du dues donc ñoom contesté ñu dettes yi et mieux pire encore déglu naa ko l'autre jour mu expliqué ko je pense que même Birando déglu naa ko mu koy wax ñu expliqué ñoom lan moo tax ñu yegg ci difficulté yooyu nga xam si ni dettes yooyu li ci gën a ab ëpp solo moom mooy retenue yi nga xam si ni ñu ngi koy sur les salaires hmm. ak retenue yi nga xam si ni euh, TVA bi ñu war a reverser wuñ ko moom moo constituer une bonne partie de cette dette là te loolu tamit dafa ay conséquences fiscales donc du point de vue fiscal li sëñ Birahim wax mu moo ci am c'est-à-dire que le président Macky Sall les a roulés dans la farine loolu lay affaire bi parce que dans aucune disposition ni dans la constitution ni dans le code général des impôts le président de la république a une compétence significative en matière fiscale président munul baale impôt président Macky Sall mënu ko woon président Bassirou Diomaye mënu ko loolu il faut que mu leer ci bopp ñëpp parce que l'impôt c'est du domaine de la loi boo demee suñ constitution article 67 dañ ko ci préciser. mais am na ñuy wax question de redevance euh, ngir ñu mën leen jàppale ci li nga xam ne moo jëm ci impôt bi est que c'est une solution pour ñu mën leen a jàppale tey. waaw jàppale am na que en fait ñoom solution bi ñu bëgg cest à man je man dama gisul man pourquoi euh, peut-être mën nañoo wax ci modèle économique bi ñu dem seeti président de la république mm. mais sur sur leur problème avec le fisc pour man. même le ministre des finance soxla wuñ ko gis. directeur. Euh, mais dafa sori sax sëñ Birahim. mooy impôt ñoom bi ñu dépendre. Hmm. am na laa au niveau de l' article 706 du code général deuxième impôts prévoir na. Hmm. ay mesures pour boo nekkee ci situation yooyu parce que l' aussi tamit yu mel noonu am na. et mais une entreprise qui est en difficulté économique et financière qui respecte. qui accepte le bien fondé li nga xam si ni moom lañ koy réclamer mais mën na demander une remise gracieuse mën na demander à ce que dette fiscale yi mu am administration fiscale baal ko parce que sur le plan économique et financière nekkul en mesure mu def ko il un arrêté du ministre en charge de finances de 2018 qui fixe yan conditions lañ ko mën a def nga présenter preuve difficulté économique et financière à travers vos états financiers et beneen bi moom mooy nga prouver ni def nga effort de paiement aussi parce que c'est pas parce que dañ la redresser rek que yow da ngay ñëw toog mais te effort minimum bi effort bu ndaw lañ la laaj ah. hmm. et chaque jour les services ñu ngi instruire yu mel noonu chaque jour ñun ñu ngi dugal ay dossiers yoo xam si ni administration fiscale mi ngi lâché ay dettes d'impôt parce que administration fiscale sa vocation nekkul mu participer à la destruction wala à la disparition des entités économiques am na ay mesures d'accompagnement et ces mesures d'accompagnement là sont d'ordre technique qui doivent être réglées par des services pas besoin ñuy dem ba ci ministre bi wala directeur général des impôts parce que am na yenn montants yi ça se gère au niveau du coordonnateur je pense que euh, secteur des médias ni mu mel ak modèle économique bi ñu am je pense que c'est pas gis nga quarante milliards yi guddoo la quoi ci objectifu impôt amuñu amuñu ñoom dekku sax objectif yi ñoom en réalité je pense que ay solution mën na am foofu mais ñoom li ñu bëgg si ma leen déggee ñoom li ñu wax ñu bëgg un effacement total ce qui n'est pas du tout possible parce que si l'État prend bu ko defee les autres secteurs aussi vont le demander parce que ñoom ñëpp nekkuñu ci difficulté par rapport aux impôts donc il faut ñu xam ni impôt mm. obli lu obligatoire la parce que impôt comme ni ko Gaston Diaz waxee prélèvement la dont la vocation primaire est de contribuer euh, ci charge publique donc bu fekkee ni képp ku am boru impôt doo ko fay yow dootoo fayati enseignant dootoo amati hôpital bu viable dootoo amati force de défense et de sécurité bu viable dootoo defarati benn tali dootoo amati éclairage public. man de gis nga euh, ba ci euh, Moussa mii di def ay ay action sociale ci dëkkam.